te yoon wi li mu ngi ci dugg xam ne lii lu ma ta waxal te sunu càggarte rek ndax dëru suñuy bàyyi dëru loon suñuy maam kon buñ dalee doon ñàkk jóg rek ndax ba ko sëñ Tuubaa sos ànd ko sunu maam yi lu leen dégg nañ ko lu leen gis nañ ko lu leen def nañ ko waaye faaluñu dañoo bëgg codi ci yàlla topp sëñ Tuubaa rek lu leen ca fekk mu ñu fa seen sëriñ bi fi seen kanam jàpp ko ne ko cas sànq ñu gën a dëgër ci lañ nekkoon doon sàmm la mu leen dénkoon ba mu juróom-ñett ji ñu ko dégguñu te taxuñu fi yox te taxuñu dox yox la lam lam jëmbatoon ñu di ko sooxal sax ci way sa den ñu leen toroxal di leen dóor nangu seen naat di leen tojkal di leen def lu ne ñu way ca li nekk rek ba sëñ bi ñoo ko dellu si yëfee gën faa dox ko cas ñu gën a la see nekkoon ñuy jóge fi di ko fekk gànnaar ñu leen doog di leen dóor di nangu seen mu jaaroo din ñu yóbbu ko jor sa digg man ne bu ñu dégg fa fekk loolu ñu dinu ko def bala ngaa dem ñaan kay ñu leen toroxal ak def loolu ñu muñ ko mu dikk njëriñ ñu dar ko ba nu mujjee boromam mboolem mi ko daroon ñëpp tàmbali ci ñoom bokkal bàyyi di sëñ Yoro tekki rakam ñëpp wàññi ko fab Cheikh Moussa teg seen kanam def ko mu sëñ Muudu def ko mu Cheikh Lo Xadim aar ko sàmm ko taxaw temm di fii la ison daara kenn ñi ngi toy yab kenn ñi ngi yoon Cheikh Ibra Fall jóge ci toogal mu toogoon Cheikh Moustapha ci Touba ci wax ñu ñaaw ak ba mu demee dafa daje Touba gépp ne nii ngeen nekk Moudou Moussa moom fi te tey laa bëgg mu yem ba mu waxee ñoom ban ka seen njëlbi la seen gënoon njëlbi gën saa ah, ruuy yi xam naa turam dama ko suturaal maa waaye na maa jaar ci na duggee dëkk bi ak sumbi suma tubé damaa teexulaayu ndax xam naa borom tub yi ñëw tubé yi jënd ci dëkk bi tey dootoo dégg sama baat Cheikh Moussa day toogal nañ ci njëriñ di ko wax lu ne ci ba mu ba mu ba mu Cheikh Abala man si lam mu tedd ma même Cheikh Moussa toog na ma ma sama der bi dugg mbuus dootuma def tepp ndax jam-jam ba mu dajale ñëpp mais li ngeen wax lépp dégg naa ko dama jéem soxna waaye lépp dégg naa ay daan ba ngeen xam ne fii ma toog war fee toog a tax yàlla jeg ma ci ndax yéen ñëpp amu ci kenn koo xam ne mën nga am benn dara jëbul sëntuwaa liggéey loo ma sëntuwaa gërëm la te ba ngeen di liggéey tudd moom la ma doon liggéey nii da ngeen lu ma jib ngeen liggéey muy liggéey kër yi ma nekk doon ko tey néeg bi ci dëkk bi ci gën maa ko defal maa ko takkal seexul xadim bi fi ci kër gi maa ko bi gën woo ci kër ci kaamil koo rafet maa maa ko bind bind te sama naaj bi sama sax lu ngeen def def naa ko te moom a jur tudd leen jur mukk foofu ku fa àgg xam nga ne fa nga fa nga fa nga ak mag ñi daal ko loolee di dox yoon wi kenn yóbbu kenn mësu ko ñeme ba Cheikh Moussa Diouf ñu daal seen fal ci loolu seen bàyyi dar ko yoon wi dégg baat bi benn ba Cheikh Abdoulaye dikk ñu ñu dar ko ñun ñu fi def ñun dar ko baat bi benn lu mu wax kenn du ci teg baat ñu ko doon ràññee ràññeel ñëpp alku nañu fi kanam adduna ba Cheikh Abdoulaye Diouf ba seex Sall yu dikk ay yee nag maa ngi jeex ñu ne sëñ lu ne lu lu neex ni def. loolu laa bëgg ngeen xam lu mën a wéy ku bi doon doonu taalibe ku doon doom doona doom ku doon rakk doon rakk te yen fa nga waree kilifa gu lewet nag day alal nit te su yaari kilifa yi ñu tànnal dañoo lewet seen lewetaay ku leen ci topp da nga yàqule mu Cheikh Mountakha ak Cheikh Abbas mi waaye na ngeen xam ak seen lewetaay ba ku dund nañ ci bàyyi maa ngi woo képp koo xam ne la nga yor Sëñ Tuubaa la ko jox wala mu jox ko sama wala mu jox ko sa baay nga doon ci mu te doonul ci dara maa ngi ñëpp yem dun dara suñ teel ngay bàyyi suñ teel ngay maam yéen suñ tubaab defal képp dañuy teel di ko ñu bëgg a yoon ñu toog di xool rek dara jógu maa ko tàbbali suñ abbas mi suñ kilifa bokk na ci mag si yoon tey ak Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall ak Cheikh Abdou Latif Jenn Jenn moom si Issa ñu leen mag si yoon tey bëriwul ak mboolem doon kilifa yëpp ñun ñëpp nañ gisee te xam suñu bopp te takku te te yoon nañ ko su na ko suñu bàyyi suñu maam yi aare woon ku ko bëggoon ñaar ñu duggaale ko nga ko sant ji la ki la ci la du du tax yàqu yoon yoonu benn baatal na doon te moom lay doon sëñ bi taxaw leewataay bii na gis ko ci topp xew-xew yi sam barkeem ci oto yi nañ leen wóor dootu fi am Tuubaa mel ni mooy kabik adduna mel ni Ndakaaru përi dootu am mukk maa taman maa ceer maa ko wala man sama bakkan du ko fekk maa ko am jom woo naa kilifa yoon yëpp na ñëpp taxaw Touba aw carte fale Touba ak sëñ Touba ak daaru bi dar aw carte dootu fal nit ab ji fal dootu fat nit baatu sëñ bee dox te ku ko wedd mi ngi ci kanam danañ ko diggalee woo woo naa kilifa yoon yëpp na ko ne takku ndax buñ ko ree ni ñaar yoonee ko foo yoon nu toog léegi di ak jaaxal du nuy noo war a aaru yoon nun ñii nun nun doon ñii di suñu kilifa ci ko tàmbale te man man man maay premier seen seen général te fii man dëkk koy tàmbale daaru mu teg daaru man xaw mu fenn waaye foofu kat lu ci fal nit mu mu mu mu aduñ ko wax diplôme du ci fal nit te tuwaay loolu du am li am du am loolu bari ba ngeen xam kuy réew def na leer kuy doom def na leer kuy rakk def na leer yow ndu foofu kaay benn baatu bi sëñ Tuubaa ko moom lu fi sëñ Tuubaa ko def kenn am dara de ci yoon bi lu sama baay la génn sëñ Tuubaa lu sama maam la génn sëñ Tuubaa amul kenn defu fi dara lu taali di taali bi aw fay taali aw la am taali taali bay amoon bi sa da yokk waaye doon yi te xam ngeen seen bopp ñu du ay taali bi te bu koy taali bi dugg ci biir dëkk ko yàq bëgg dugg ci biir yoon bëgg ko yàq dañu ko diggaale ñoom naa kilifa yëpp na ñëpp jom def arma na ko suñ maam yi defoon aar sëñ Tuuba aar aw njabootam bi taxaw suñu garaawam yoonu dox na mu doon doxee la nga xam dootu am mukk mukk mukk maa ko ku fi bëgg nekk te bëgg fee nekk ab jàmm na fee nekk te jub yar teggi te xam nañ ñëpp xam nañ lépp dara mu ndax kanam gu waa xëyal xam na fa nga ko jël xam nañ la waral wax na bu joti na pay la yoon bëgg fooy noonu toog di lekk ceeb ak naa nangu addi dun ko def loolu bàyyiwuñ fi kilifa yu yoon yépp laa woo kenn ku ne nangu doon arabu Sëñ Tuubaa fa nga ne te balaa lu fi texew yépp daje baat bi benn nekkal fi Sëñ Tuubaa ki ki fi yor ko ki dëkk bu nekk fa nekkal Sëñ Tuubaa yor baat bi yoon yu dox na mu dox ku ko mëntul ñu diggaale ko yow te yéen gone yéen jur di gone Mbàkke Bari sama sama balaa ko tàmbale yéen ñëpp na ngeen yi taax yi te ñëw fii seen dëkki maam yi sëñ Tuubaa wutal na leen lépp njël ma ñu ko fi def ci barab bi seytaane yi daal di jaxasoo loo indi loo indi yabal gi foofu leen taax yi te bàyyi ndakaaru te ñibbisi fii te bàyyi formé caaxaan nit ma balaa doon seex day doon tool bi seex kenn ko fi def ba mu demee kenn mënatul seexal ku la ko wax wax lu am seex du tappale du plan du politique ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba am ko am nañ ko ñu ko amaloon dootuñu ko am mukk ku ko ku ko am te sa ko mën nga wacc ko mu Sëriñ Tuubaa nangu yëfu Cheikh ko rek dañoo bàyyi lañ lañ la leen ko mayoon kon nag nan dellu te leen mayoon lii te jàmm te dëkk teel ci des lépp suñu yoon bañ cee gannaaw loolu maa ngi dénk sama bopp di leen dénk lu koy nu toll Sëriñ Tuubaa yi bu leen wax mukk bu leen tontu mukk ndax kuy wax danga am jot kuy tontu da nga am jot guy gën rek nan dem rek wax amul njëriñ tontu amul njëriñ kuy wax da am jotu déglu bay wax da nga am jotu wax kuy kuy tontu da nga am jotu déglu bay tontu bu leen wax bu leen tontu na def na suñu maam yi defoon lan dégg luñ ko dëgg lañ daj diñ ko te fa duñ ko dañu dañu dëgmal fi ñu dëgmal rek sëñ Tuubaa dëgmal yàlla ak yonte ñu topp ci am dëgmal ko rek ba am li ñu am loolu ñu ci nekk dar du si mën dara waaye comme ci yoon ak ak lu neex nit wax loolu moom dana dañ incha allah dana dañ soo mu taxalee wataan bi des des ko topp ku ci jàdd si loo war a jàdd dañ ko diggaaleewu kilifa yoon yëpp na ku la jóg doon armé taxaw fa war a taxaw na sa baay taxaw na sa maam taxawoon dara du yàqu waaye lekk addiya ak nangu addiya ak noos ak tabax ak takk jigéen tax bayiwut loolu amul benn yoon na kilifa yëpp dog takku na su maam yi doon waaye armé Sëñ Tuubaa nu doon ko armé Sëñ du fi jóg te leen du fi dox dul baatam ñu ko wut ci biir ba koo yàq nag dees na ko diggaale ak ñoom muy fii muy feneen loolu laa bëgg ñëpp ñëpp ñëpp xam ko li ci sax bu leen ci am benn soxla te yéen doomi kilifa yëpp ngeen bàyyi Ndakaaru bàyyi taax yi ñëw leen fii seen beer bi seen tuwaay yi maam yi ba ñu toj àll yi di reesoo gaynde ak bukki ak jinne yi rab yi di tuur seen ndox ba góor fa ñu seen diine ak seen job ak seen bëgg ba mu ñoom biñ ko defee ba toog fi képp des na nu ko fi këpp dem di fekk seytaane seytaane ki ca barama bi ak nitam ya ñu tooñ kenn tooñ noo toon suñu bopp la ne noo xam ba tey ji laa ko noonu laa dem bépp barab bu ñuy tabax ci Ndakaaru ay soano ak xama seen xama yooyu ku fa wootee lislaam maa lànk bu fa wootee lislaam du ma fuy du ma fuy jul lislaam pays yaa ngi nii kooku fi jéggi rek foo am woo ma lànk sa yàlla sàkk nañu pays du samedi sëpp sëñ Tuubaa sàkk nañu lu ñu woote sax nañ def lu ñu di xayma ci taax ak i saal ak i lan saal dara mooy lan loolu du ko dàq bu bëgg sëñ Tuubaa bëggoon ay sato seen fii nekk ci lislaam nekkoon sëñ Tuubaa xéewal mu jox bu àddina ak àllaaxira te xéewal jox nu kon nu ko def fooy ak noonu si daa bëgg ñu ko yàlla woo ci teel bi ci dëgg loolu nag moom kenn waxluwumu kenn soox maa ko waxal sama bopp te ku nekk ku nekk ci yoon te am jom ku ci amul jom man naa ci ne ba ba mu jeex takk man waaye cab-cabe gi cab-cabe booti yoon moom du baatu yoon moom dana dem tubaab du ku dul Sëñ Tuubaa te kuy Sëñ Tuubaa mu dañoo góoriwul rek Cheikh Ibra Faye moom Sëñ Tuubaa bokk baay ñoo bokk ndey maam Cheikh Anta noonu ñoo bokk lépp te teewul boobu Sëñ Tuubaa làqu dañ fab Cheikh Ibra Faye teg fii kat def ko muy Sëñ Tuubaa boobu Sëñ Tuubaa nekk dañ ko def muy Sëñ Tuubaa seen Moodu moom mënu ko moom seen Moodu Awaar ñoom ñëpp indi fa yëpp topp ci moom loolu day dox ba ak si suñu bëgg fee yàqu ku ne la wet nag lu ko neex wax lu ko neex def ci kaw la lewetaay suñu taxaw bii rek ak léwataak suñu abbas bi tax ñu bëgg yaa ñaaj yoon loolu dana dañ ko set wicc bàyyi duñ ko man ceerul na taalibi doon taalibi dëkkandoo doon dëkkandoo ku ku wut àll yi si wutum àll ñu fi bàjjantu lépp li ñuy bàjjantu fii lañ bañ fi di kula mu ñu xam na leen bu doy dikk Tuubaa nag jaay suuf si ba ñu ci barkeb Sëñ ba am xaalis si ko xeexe Sëñ Tuubaa ci suuf te defe na xamuñ ko daan leen law nuur yëpp dañ ruddi ñu fes ñëpp dañ ko diggaale yoon face à face xam ngeen ne bu wax jot des na wax te bu faj des na ko faj loolu nag laa bëgg ñëpp xam ko moom fu waaye mën a nekk na nga xam loolu te yàlla du nekk dafa war a nekk bii nag moom li fi saxaabal sëmboon kenn du ko daan seen maa ngi dund te mu fi jóge ji ku ma wóotu yàlla ko xam waaye mag sama rakk sama sama doom yi moom lañu ñu sàmm ba yow ma xëyam te faaw yàlla fi bàyyi ku koy sàmm seen tubaab bi ma indi yi li tax ma indi ko le simple waxoon rek ba mu indi gendarmerie yi ñu ñu ñu ñu jëm ci marché bi di ko am kilifa ko yor naa ko xaj yi ngeen ci dëgg mu ne ko xajee xam xaj xaj rek mën a seet xaj ndax xajee xam xaj yow commandant gendarme yaa ngi toog ci mbooloo maa la jox ndigal na leen lépp lu xam ni def na ko ci dëkk bi lu lor nit wala wala lu jubul diggaale ko kooku du ma ko wala tukk ko bëgg wala nangu wax ma diggaale ko kooku ci sama doom laa ko tàmbale ab jullit day doon jullit di jëf-jëf jullit yéen a bopp la mu yéen ñëpp gannaaw loolu lii nga ñëpp bokk ci dugg dañ dëkk tedd te dara war lañ ci lu mu xëy gis ko muy ndox mi bëgg naa ñëpp fay ko fukki fan ak juróom laa yow yow commande moom laa la may bu bu bu mu nga seeti benn tur bu fay benn kepp benn tur bu fay la ko gis rek la kenn ku ne yaa ngi fay turaase yóbbu kër ko dem la fukki tali ba nga fa du seen ñuy sas kenn yóbbu du seen nga jënd lu la fukki juróom buusi wax bi marché kenn yóbbu bi affaire yow nga ko fi ci kaw lan ab gouvernement du yor aw aw aw aw nitu yorum réew réew moo gis mu développé waa réew maa ko développé dañuy def seen dawaan ba mu mat sëkk laaj seen droit ñu defe leen ba mu mat sëkk réew mooy dox waaye naa laaj lu ma sama droit lu ma lu la nga awma lu la nga manque lu manque naa manifeste naa def nii te liñ la li la yoon te nanguwoo ci dara li sa dawaan defoo ci dara loolu bëtt dox nit day wax dëgg wala moo wax fekk réew mi waa réew mi rek ko war a defar lii waxtaan wax na bis bii tey bisu suñu waxtaan faaw ñu wax ko ci la ca des mooy ñi yow Macky Sall yow lay naa bi takkal fas yoo xam ne boo ci da te bu ci war wenn te bu bu ci rus kenn bi ci jëkk moom noonu bi la bëgg noonu ak seen tuwaat bëgg laa noonu la muur ay noonu lànkal bu ko nangu tey bu ko nangu ndax say noonu rek la koy fexeel ak sopp yi ak sopp yi duy dof soppe bu dub dof nag noonu bu nitee ko gën ku lay fexal fexam fexamu jaan da nga koy xam sëñ Tuubaa ñëpp ko fu waa am ci moom rek liggéeyal ko te liggéeyal ko liggéey bu ñëpp gis bu kenn mënatu la far feeg yow ma xiyaamal la ko wax iraatoo Macky Sall ko fi defee nag la ñuy wax comme neex ku naqari te bi nga ko liggéeyal añal lan ndax bi nga xëccoo say morom jot nga te jot ki jàmm ak salaam kon su ba sëñ la nga defoon ko waaw loo ca bañ yokk loo loo def si digg kër yi diine yëpp loo ca bañ yokk bu la kenn seetu si kër yi diine yi nga xam ab tedd ah, ah, nguur bu wax ko yaa def sër ne bu ñu la fee ci bu sëbi fas wi ci def mooy alxuraan na wattu alxuraan alxuraan bi ñu di sóob bee taw xool la yàlla kay di leen jàpp ko defee génn ci sa yoon nekku ci te boo wattu alxuraan alxuraan am na keneen ko gawte yàlla dénk ko yoon dénku saaba dénku wàllu dénk moo ko wattu boppam innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun toolu yàlla wattu kenn mën ko ruur maa na ko xamal te yalwaan foo dem na fa màkka mit na gël salaam ba suñu miskin yaa ngi ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na bu jóge mënu ko dindi ba léegi miskin yaa ngi te baaxam bu sell gi ci miskin yi ñoom la defoon xam ñoom la defoon lépp lu mu am jox lu ñàkk yàlla ñàkk sabab dong wolof ne doy na koy daan waaye génn ci dong lu waay gëm na kenn ko jàng te lu waay mën a jàng lu alxuraan ba xam sa diin jaamoo ko yàlla bis na ñëw nga rëccu ak loo mënoon ak a am alxuraan gis nga ci jëm ñoo yàtt yooyu yaar maa ngi la koy dénk la des mooy loolu neex dafa sañ nga ko mën nga kooku la ko wax lànkal fas yi yoo ci war da nga daan li ngay def ci réew ci la yàlla xettali soo xeet ndax su yàlla jiital fi kanam xeet am ca jom te def ko ngir yàlla sukkandu fi nekkoon du jullit te teewul kilifa yi diine yëpp ànd moom te dañoo sonn te ñoom fàcc fu la géej bi rek la ñu àndee woon moom waaye de luñ ko mën suuf suuf ci lu jëm ci diine mën a diine ji du ma ci dugg du ma dugg ci diine du ma dugg ci famille liggéey la damay liggéey dem sama yoon yamal foofee professeur la jéem te mat na ko leneen lu leneen lu lay wax da lay suuf rek bëgg bëgg laa bëgg laa fenk di loolu mu gaañ